kilifa kon préfet ñu ngi lay yóbbanti ci say kilifa ndax ni nga ko waxee rek ndax ni nga ko waxee rek duñ la fi tëb di jàll duñ la fi tëb di jàll ndax bu ngeen xoolee lettre bi ndax bu ngeen xoolee lettre bi ba ko sëñ Abdou Lahad di bind ba ko sëñ Abdou Lahad di bind mënoon ko adressé Abdou Diouf mënoon na koo waaye defu ko waaye defu ko ki ne fii la rek la ko jox kon yow it sa loxo lañ ko tegaat kon yow it sa loxo lañ ko tegaat ndax daaw sëriñ bi da na woo ndax daaw sëriñ bi da leen a woo te laata mu leen di woo te laata mu leen di woo damaa woo ba ma ñëw damaa woo ba ma ñëw mu ne wool ma mu ne la woo mu ne ko wool ma ki jiite réew mi président Macky Sall président Macky Sall sëñ bi wax ko ko ci téléphone sëñ bi wax ko ko ci téléphone wax ko ni ko bëggee wax ko ko ni mu ko bëggee sëñ bi leeralaat na ko sëñ bi leeralaat na loola jëru si waat kon loola jëru si waat kon yéen la daal la cay seen wàll na ngeen ci bu baax na ci taxaw bu baax ndax euh, li tax. ndax li tax. bu ngeen ci taxawul rek. bu ngeen ci taxawul rek. jafe-jafe lay indi. jafe-jafe lay indi. ndax Baye Fall moom. ndax Baye Fall yi moom. li leen sëñ bi digal. li leen sëñ bi digal. faaw def ko faaw ñu def ko. kon yéen tam bu ngeen leen ko sàmmalewut. kon yéen itam bu ngeen leen ko sàmmalewut. bu ci jafe-jafe amee day naqaree lijjanti. bu ci jafe-jafe amee day naqaree lijjanti. ndax ñoom seen bakkan lañ teg ci ndigalu sëñ bi. ndax ñoom kat seen bakkan bi lañ teg ci ndigalu sëñ bi. xew-xew yii amoon. xew-xew yii fi amoon. ba ñëwee ci man ban ñëwee ci man ña ca gaañu ci ñoom bari na ña ca gaañu ci ñoom bari na waaye dañ na bu ci nit faatu woon waaye dañ na ko bu ci nit faatu woon it duñ la ko duñ la ko tàggee ndax xam ne def na lam war a def ndax dañuy xam ne def na la lam war a def kon yéen itam kon yéen itam am ngeen ci responsabilité. am ngeen ci responsabilité. te ñoom it am nañ ci gàllankoor. te ñoom ñii it nag am nañ ci ay gàllankoor. ndax ñoom duñ jàmbat. ndax ñoom duñ jàmbat. Baye Fall duñ jàmbat. Baye Fall duñ jàmbat. ñoom seen bakkan rek la ñuy joxe. ñoom seen bakkan rek la ñuy joxe. waaye bari na lool. waaye bari na lool nag. ñun jàpp ci biir dëkk bi. ñun jàpp ci biir dëkk bi. ndax suñ ndax nit ñi dañuy jàmbat. ndax nit ñi dañuy jàmbat. ne dañuy dugg ci biir kër yi ne dañuy dugg ci biir kër yi te loolu bokkul ci liggéey bi te loolu bokkul ci biir liggéey bi waaye loolu nag bokk na ci la indi jafe-jafe bi waaye bokk na ci nag la indi jafe-jafe bi ñoom ñoom Baye Fall yi dañoo wax ne ñoom Baye Fall yi dañoo wax ne kër gu ngeen gis ñu dugg ci rek. kër gu ngeen gis ñu dugg ci rek. dañ ko topp bañ jafe jaay yàmba wala lu ñu demee. dañ koy topp bañ xam ne dañ fiy jaay yàmba wala lu ñu demee. moo tax ñu dugg moo tax ñu dugg fa. loolu nag kon yéen leen ci war a taxaw. loolu kon nag yéen leen ci war a taxaw. te bari na lool. te bari na lool. burut benn du ñaar. burut du yóbboo police. bu subaa bu subaa ñu gisaat ko muy dox ci mbedd bu subaa ñu gisaat ko muy dox ci mbedd bi. nag am lëj lay doon. loolu nag am lëj lay doon. kon yéen itam da ci am seen responsabilité kon yéen itam nag da ngeen cee am seen responsabilité bu ngeen jël responsabilité bi ndax bu ngeen ko jëlut responsabilité bi bu ci leneen xewee bu ëllëgee bu ci leneen xewee bu ëllëgee bu bu ngeen dëniir loo du sotti bu ngeen dëniir loo du sotti ndax yéen lañ dénk nit ñi kon loolu seen responsabilité kon loolu seen responsabilité kon ci yëgoog ñoom fu ñu ci demati ba mu wóor leen lii nga fa fu ñu ci demati ba mu wóor leen ne lii nga fa te loolu lu waa Sénégal tere na ko te loolu lu waa Sénégal tere na ko li lu waa Sénégal terewul nag li lu waa Sénégal terewul nag te sëñ bi moom ab dëkkam di këram te sëñ bi moom ab dëkkam muy këram loolu mbirum boppam loolu mbirum boppam waaye la ci des yéen da ngeen caa war a taxaw waaye la ci des nag yéen da ngeen caa war a taxaw ndax bu ngeen ci taxawut rek ndax bu ngeen ci taxawut rek mooy waral ñoom ñu fajal seen bopp mooy waral ñoom ñu fajal seen bopp te buñ fajalee seen bopp te buñ fajalee seen bopp nit ñi ne civil net nit ñi ne civil du lijjanti moromam siwalam du lijjanti moromam siwalam te fekk na taxawaay bu war a am bu amee fekk na taxawaay nag ba war a am bu amee bu ñu leen signalé yéen bu fekkee ne bu ñu leen signalé yéen ngeen def ceeg dogu ngeen def ceeg dogu kon du agsi foofu kon du agsi foofu kon loolu laa leen ci soññ kon loolu laa leen ciy soññ procureur yow itam procureur yow itam nga jot li ko say kilifa nga jot li ko say kilifa ndax xam ngeen ne ndax xam ngeen ne ñëpp xam nañ Sénégal lu waaye ni mu tëddee. ñëpp xam nañ Sénégal lu waaye ni mu tëddee. waaye jàpp naa ne la ma yoon Cheikh Abdoul Ahad. waaye jàpp naa ne la ma yoon Cheikh Abdoul Ahad. Euh, président ba mu fi nekkaloon. président ba mu fi nekkaloon. mayoon ko lii ñu ko tere Touba. mayoon ko lii ñu ko tere Touba. loolu lu waay Sénégal terewu ko. loolu lu waay Sénégal terewu ko. waaye loolu xam nañ ne. waaye loolu xam nañ ne. dëkk bi yeyoo na ko. dëkk bi yeyoo na ko. kon yéen itam ngeen def ci ngeen def ci yitte. kon yéen itam ngeen def ci yitte. ndax bu ngeen ci defut yitte rek. ndax bu ngeen ci defut yitte rek. anarchie mooy am. anarchie mooy am. ndax ñoom li leen sëñ bi digal. ndax ñoom ñii kat li leen sëñ bi digal. seen bakkan lañ ci rek. seen bakkan lañ ci rek. buñ ci doon faatu ba jeexit. buñ ci doon faatu ba jeexit. xam naa ne jaral na leen ko. xam na ko. kon nag kon nag. loolu mooy li ci jëm ci loolu. loolu mu ciy jem ci